sëriñ nee na li mu bëggoon a li ma bëggoon a gis lépp gis naa ko ci yéen li ma bëggoon a dégg lépp dégg naa ko ci yéen tey jii bu ma ku di murit dana dana dana déglu ci kaw suuf kuy dund boo sañoon sañ jéetaay bii ku di murit dana ci bokk ma wax wax ji wax ji wax ngeen ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sañ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de ku wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida sëñ bi mooy sëñ xasida mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom digg moom bi diggam ak boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi réy na liggéey Sëriñ Tuubaa réy na lool ndax luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy moo moo jiitu ci liggéey bi mu jiitu ci liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña nga xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw نجيل زين فخرة فيفري تل فكونوا أخر لكن دعني كتير فنك كتير خزدي خم كتير خم كتير خزدي بق كتير خزدي لقي كتير خزدي كون يو يجيل تكلم قصدي مو يسنجي بنكو خم بنكو خمود قصدي دفع جرجوك دعني خم خم am xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xas yi di liggéey xasida yi dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba am xam-xam ñëw nag jëbbal si lépp xasida yi nekk ci sëriñ bi loolu loolu loolu laa joon dégg ngeen wax bi loolu loolu laa joon benn bu ne bu xamee lu xew dafa war a daa daa war jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax bi loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du bee sëñ bee tawfeex sëñ bi moo leen ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan moo ci wommat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoog loolu loolu mooy dama ne am nag góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan li déggoo lool bu waxtaanee baag si si mbir di ma ne ah wax ñu ko waaye diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe <laughs> waaye yéen yéen ñi xam li xew <laughs> bu ngoog de noonu la de kon jërëjëf jëf jërëjëf na ñëpp daal la seen loxo baax na lu daal la ay semaine ay semaine baax na waaw waaw waaw moom kay yéen dañu xaw a yeewee ko rek dañu yeewee ko ba yoon am rek ñu ne ci buntu buñ jëmee dañu yeewee إلهي يا هلاق المدي قد